asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex di am mbégte saa seen defal leen vidéo pour ñi nga ne yow best wax si cloche boobu ma andil leen si nag mauvaise nouvelle laa mën a wax pour yaakaar pour ñi ñi bañ a toog di am yaakaar ba tey si dossier boobu c'est compliqué gars franchement euh, pour man. moment bi moment bu baax la pour convaincre parce que am suñu défenseurs yëpp blessé maa ngi si maa ngi si préparé benn yëpp yëpp yëpp yëpp blessé xool nag fii rek balaa lii di ñëw moo tax amoon ko léegi sax bu ñëw day titulaire lay wax waxuma la ñëw si banc bi titulaire lay def sans mais nii nii nii mooy loolu mais dañuy jaar service commercial gars yi ngeen bañ ko fàtte 77 352 31 01 yéen ñuy bëgg ay casquette maillot blouson club Euh, équipe nationale, c'est à vous de voir. Le numéro c'est simple. Contactez-vous. Pour nous dire que le prochain, dernier qui est le 9 mars prochain, c'est le 9 mars prochain. Donc, le c'est à 28 euh, 000 caisses de 50 prochaines lettres. Donc, pour nous dire que. Euh, Corte donc euh, disponible sur le même numéro wala ngeen personnellement 77 596 05 Ok, on va parler de Malik Thiaw bi Actuellement, il actuellement monter en puissance carrément du côté des Milan AC et que ñëpp teg nañ seen bët ay prestations yu am solo Milan bu ñu défense bu euh, du côté de Serie A Italie besoin de nañu coupe du monde fi jógee jafe ñu il a fallu le petit Malik Thiaw jóge si ay ay en Ligue des Champions contre contre Tottenham mais rien n'a d'exceptionnel exceptionnel en défense et ces derniers matchs même le dernier match bi mujjee am ni contre Atlanta weekend bi mu wane na mëninam li nu mel nak ay taskatu xibaar yu ci melni ni bind ñoo ngi xamale ne il se peut boy bi dañ koy sélectionné et que liste bi ñëw mën nañ mën nañ ko si mën nañ ko si gis puisque Allemagne amuñu sa défenseur bu xamante étranger bu nek étranger ci championnat bu mak nek à ce niveau là si tranche d'âge bu Malick Thiaw y en a pas donc on sait que c'est espoir de nekkoon donc c'est difficile pour pour Sénégal xam motax tout le temps tout le temps Euh, ñun suñu problème fédération bi lenn rek la ak euh, Aliou keneen ak keneen xaw ma kan si ñoom mooy que xamuñu anticiper xamuñu sécuriser joueur booy wax nag ñu naan non kii moom soog jot pas mu ñoom sax laay wax mais ñenn ñi dinañ wax ne euh, waaye non kii booy kii tojagul fenn dafagul dara moom signé signé contrat mais bu fekkee mën na aay na ñëpp ne la aay na mën na mais mais waxul di waxul mbir mi mais tant que tojul daal du kii ñu ngi koy wax ne depuis cinq ans quatre ans am ñu si réussir ñu teel a ñu teel leen woo. ñi mel ni Ismail Jakobs yombul xam nga Ismail Jakobs moo bëggal boppam Sénégal kooku moom daal na football Allemagne sax nga xam ne kii daa bëgg Sénégal day like ay ko jox li mu bëgg si carrière football du du coupe d'Europe la ko mën a jox du monde c'est compliqué donc euh, g benn wala g Sénégal xam nga na ñëw fi gagner coupe d'Afrique euh, sens de trophée foofu la paix donc c'était entre Sénégal et mais Sénégal Euh, pour man soit option la soit contacter contactez Touré wax ak Touré voilà nous ay coéquipier mu numéro c'est pas opportunité soit vous appel à Salif Salif Salif Salif comme grand frère 04 conseil donc faut opportunité mais ni ni ni ça Allemagne dèjà booy buy xaw a waaye jóg tuuti sax dañ ko jël wutuma la kii kii am taay nekk si équipe bu mag ceinture di fees del ñu am équipe bu baax muy titulaire di waa mina amul ngan di problème ñu tekk rek affaire yi leer ay Maldini yi xamante ne c'est des joueurs légende football footballistique bi xam mondial ñëpp xam Maldini Maldini jëli ko andi ko Maldini du como de de ba teg si défenseur la quoi défenseur bu gisee beneen défenseur bu ay saa ñaati jeune la bàyyi Serie A ñaati jeune bu xamante ne ay italien lañ

mais ah bu doon si liste bu ñëwee si Sénégal dina ma jaaxal lool lool loolu laa ñaan nag loolu laa ñaan de mais dina ma jaaxal lool lool lool sax donc ngay gis si bu bu bu kii euh, bu Allemagne moo gën a gaaw parce que jour bu mel nii Allemagne amuñu ko amuñu ko mënuñu xool xool leen championnat yi Premier League xool leen fu leen neex nag fépp benn jeune bu xam ne moo joué Ligue des Champions man lii maa Malick Thiaw man nekk allemand non loolu nga gis. donc lii laa leen mën a jox pour ñi ma doon laaj question lu bëri si fu mu toll dossier bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis di leen jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV.